Ablaye Ablaye Mbaye tabaarakallah ah dégg naa lool dégg naa lool ah Ablaye Mbaye li tax ma de mooy lan mooy ah sa waajuru tedd bëggoon lool l'islam bi léegi la rek waaye bi sa ñëpp yi nekk lu la xëy yàlla am na njëriñ ko fi baa mu wax ba ñëpp dégg ko. si bàyyi nag man nga nga am loolu danga ma koo génne defal ma ko. mooy lan dangaa jëm daara Jolof. waaw ànd ak Sayar Sall. yegg si Sayar ne la ah Ablaye Mbaye peex bi fi la dëkk nga dugg sama biir kër toog ma yuuxu ni waa dëkk ba gënuma ci waaye tey maa ci gën gàtt. waaw waaw waaw. si Malick sa doom bi tëdd ji nga dendal. nga xam ni waxtaan mi lu ma am sa jot la si alamina sama ñu baax de xam nga gumba wala nee nañ tànnante bul nangu dafa jóge ciw xeer boo nangoo mu toj sa bopp ku ñu ne dañ laay dee sëñ maa ngi lay ziar Ablaye mii maa maxtaar mii dafa baax bëgg sa baay boo demee tey sama kër fa ma wekk waa kër sëñ Touba faratik sa jot la si waaw te mu bokk ak ñoom. waaw boo duggee ci penku bi. waaw da ngay jàkkaarloog sa ñëpp si àll bi. daf caa génn. jëlu jë mooy ñoom. waaw lu tax nga bëgg. si daal di Malick si daal di Malick dégg si daal waaye nangu leen ñaan nangu leen ñaan mbooloo mi nangu leen ñaan mbokk yi yàlla ñuy yàlla jàppale kii doon wax léegi sunu xarit la ñun ñëpp yàgg nañu lool yàgg nañu dañuy yàgg nañu di waxtaan boo gisee mu wax loolu ma jaaraat te pour ñun ñii nañu nañu boole ñoom yàllaa leen boole ba pare yàllaa leen boole ci meeral ci def ba pare ñu ànd ñoom ñëpp nekk benn euh, damay nekk ni dikk sunu bàyyi Serigne Fallou ca Tiwaawan ba mu ñëwee ba agsi toog ca daara ja te boobu góor gi toog mu toog Serigne Abdou toog ba ñëpp daje mu ne gaañ yi kii kan la ne ko Abdou mu ne juum ngeen Abdou bi nii kii mooy Fallou ne leeral ko ba mu leer ñu toog waxtaan bay ñibbi góor gi gunge ko ba Touba. moom it mu gunge si waat góor gi ba Tiwaawan. kon kañ la ñuy taxaw na kenn ku nekk taxaw di xool sa morom ba euh, jàppante nii. oto ba xule ñëpp koy yor foofu la jóge. waaw. waaye Lamine ñang xam na ko te kër Lamine ñang daan gaare oto ko góor gi Serigne ni ko doon kon nag nañ dem ba Louga bul wàcc sama oto bu ma wàcc sama oto nga wàññee ko mën a continuer lu rafet rek fi mos a nekk te du fi jóg nag du fi jóg mukk wallaahi Abdoul Aziz loolu du fi jóg nit ñi nag ñoo téyewul seen làmmiñ waaye mbokk alalu yàlla yàlla du fi yàlla jógee leen moo koy jógee moo tax li mu wax ci lislaam ak fi lislaam toll fi lislaam wane ko ma leen lu bari euh, Moustapha ah. maa ngi teel rek. seet boo xam moo tax li wax ni lislaam nañu dellu si waat jàpp suñu lislaam. lislaam lislaam la rek. yàlla yàlla la kenn du ko wax rek. waaye ki bi ñu wax li may bëgg a wax dafa kontaan. saay saay la mu ne li ko gën a neex. ci jullit ñoo ne aada aada ul islaami mooy abnaa ul islam. allahu akbar waxu lu baax waxu lu baax doomu lislaam mooy noonu lislaam waxu lu baax ci lislaam lislaam waxu lu baax de bu defee moom moo tudd lislaam rek mën wax loolu waaye ñu jàng ñu jàng fatiha jàngaat salaatu ala nabi bu defee nag du ñu ëff waaye dañ koy jàng rek ma dem ñoom ñooy mottali ñaan te buñ ko mottalee lu ci waay wut dañ ko am incha ah wallaahi waxuma ko nag ngir li ma bokk ak am na ay la ma wax ko du jarul leeral